Anyways.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 maanaam camion yooyu tol ni mam jóg leen njaay nee ñu safoor bi ko doon dawal moo daw ba perte contrôle camion bi mu jéeriir saaraan wuti miiru école bi daa di koy fëq dugg ci biir rajaxe ko yàq fa ay table ba école bi ab école élémentaire la di wuyoo ci turu école Brac nekk fële ca Rufisque Est ma ne camion bi yàq na fa ay table ban ak yeneen xeeti matériel laaj bi nag mooy camion boobu fekkoon xale yi ci biir kon naka lay demee musiba naaru lay Sénégal nag l'accident yi bari nañu te nag li koy causé ñëpp xam nañu ko ay oto yu baaxul tali yu yàqu chauffeur yu irresponsable indiscipline totale teg ci ak corruption bi am ci kaw tali bi ma ne tali bi bakkan yi muy faat jéggi na dayo laa wax xoolal ma accident yi am ci semaine bi ba bakkan yu bëri daal di ciy tëdd waay lii ëpp na waay la xew ca Louga metti na te jéggi dayoo ab accident bu metti moo fa ba ñaar mujj ci ñàkk seen bakkan nga ni ma ñaar am ci ay blessé yu grave ñetti mbaam àllit mujj ci ñàkk seen seen bakkan ëskëy ma ne mbir mi mi ngi xew dimanche 29 bi weesu boori 20 heures ci yoon bi nekk ci diggante Touba ak Louga ci village bu ñu naan Guet Ardo nekk ci arrondissement bu ñu naan Kokki ca département bu Louga ab auto immatriculé DL 5770 E bu jóge woon moo daw ba dal ci ab charrette bu doon daw ci sens inverse bi la ilaha bali xew mujjee xew réew mi nag bari na lu ñuy jiin jinne yi ci accident yi am ci kaw tali bi waaye tamit ma ne jinne yi ci ëpp mooy indiscipline ak irresponsabilité totale moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca Linguère doy na waar ab xale buy def classe cm lañu fekk buum takkee ci baat bi yaram wi lang a xale bi mu ngi wuyoo ci turu Déthié Fall am fukki at ak ñaar oh xale bi nag daa xaru wala dañ koo faat wala da doon foo ba pendre boppam yàlla rek a xam mbir a tamit mu ngi xew dimanche bi weesu ci boori 18 heures ci village bu ñu naan cebbe nekk ca commune bu Warxoox fukk ak ñeenti kilomètres tàqale li Linguère ne ñu xale boobu di wujoo ci Déthié Fall ñi ngi ko fokk ci ab garab buum takke ci baat bi yaram wi lang ci àll bi nekk ci village bi ab waaye doon seet mbaamam yem ci xale bi daal di woo waa dëkk bi ñu woo sapeur pompier ñu jël neewu xale bi yóbbu ko ci hôpital Magatte Lô bu Linguère gendarmerie nag ubbi na ci ab enquête waaw xale bu 12 ans moom nan lay xaro moo tax yu mel ni war nañ ko xool de moo tax ma ne jàngoro ji dal mi moo gën a graw corona laa wax la xew ca bunkilin jéggi na dayoo ay xale yu jigéen ak ay jeeg ñoo fa naan produit phytosanitaire ñoom ñaar ñàkk ci seen bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñi ci ñàkk seen bakkan nag ab xale bu jigéen bu am 17 ans ak ab jeeg bu am fanweeri at am ñeenti doom ay ma ne ñoom ñaar ñoo ñàkk seen bakkan ci village bu ñu naan Medina Bokar nekk ci commune bu Faoun ca département bu Bunkilin nee ñu jigéen ñi demoon ci àll ba ba naan fa produit phytosanitaire bi juróom lañu nekk ay mag ak ay ndaw ci àll bi doon taxani mar jàpp leen ñu yem ci ab budon bu ñu fekk ci ab toolu gerte bu defoon produit phytosanitaire ñu jaawale ko ndox daa di gaawantu naan ko laa ilaha nag ay minute malaise jàpp leen ñu teg leen ci charrette yóbbu leen ba ci route nationale numéro 4 bi taxaw di xaar oto pour mu évacuer leen ci centre de santé bi nekk ci Bounkiling diggante bi toll ci ñaar fukki kilomètre waaye furas gisuñu oto dégguñu oto ba ñaari jigéen ñi ci saasi lañu mujjee faatu laa ilaha illallah meeru faawun bi di Ibrahima Ba mu ngi déploré ñakk ambulance bi porte de santé commune bi ñakk ambulance ba nee na oto commune bi la ñu mujjee def ambulance këy réew ci localité boo xam ni am na fanweeri wilaas ak benn te fanweeri wilaas ak benn yooyu benn wilaas glace donga ci am courant hay réew mi war nañoo liggéey moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Parcelles nii doy na waar ab waaye fa jàpp doomam joo xam ne ay jooya ma ko lakkaloon dal di koy dóoro dóoro dóor ba xale bi jaare fa faatu la ilaha illallah moo tax ma réew mi man dama yaakaar ne suñu réew mi léegi daa am lu ko dugg réew moo xam ne saa boo yeewoo lu ne ay waay waay waay waay yàlla nañu yàlla musal mu doonoon seen xibaaru bë Buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru Buzz.